yëkkati xareel ko àjjana jéego ko soo li mu woy am na solo loola Luisa ma may la nga sax na ngi ni toog ndeysaan am na solo da ci biir kër jéegu puso mm, mm. di nas rek loo fekk mu yàqu jël puso di ñaw am na teranga la noonu lañ fi am di ah. am na teranga ah. dong rek la mm, wallaay <laughs> li jéegu paasan moom maa ko jéegu puso d'après ce que j'ai mooy kii ñaw ah, muy defar ku ñëw fekk relation yi tendue defar mais rafetal rek daal macha allah Yacine. Yacine. Yacine. madame Niang. mais munoo bàyyi tur munoo jëkkër jàmbur bi ngeen di wax en direct. ah non ma bref ko attention ma ne. waaw déglu déglu benn affaire am na. ka doon nangami kenn. waaw danga kaa wax. mais mais mais gis nga xam nga man lan lan lay favoriser sa à dire que dafa am loo xamante ni nit ki espace am la moo ko moomal boppam. bokkul ak li nga xamante ni moo ko fi madame Kaw ñu ne la madame Kaw. boo dee madame Niang ñu ne la madame Niang. mbete mbete bi ci plateau bi di la dalal. maa ngi lay fay bu baax baax Asma maa ngi sant bu baax a baax. ça va na macha allah. yow sa maa ngi ci. tuddee naa la ko nuyu Paasan. nañu ni mu ñu indilee l'économie de l'actualité vraiment c'est très riche euh, di nuyu la très charmante Luisa. merci euh, di nuyu itam la très belle macha allah. macha allah ñoom ñëpp di la fay ñu ñëpp ñu àndandoo di la fay am na yar yar torop dal na torop walla ma dégg <laughs> est-ce que topp ma sa ginnaaw tamit. non dem ma dem ma wàll. mel ni yow yaa may jàngal. alors donc euh, Binta que nous allons recevoir tout de suite ci rubrique euh, économie mu fas yéene ñoo waxtaanal ci li nga xamante ni mooy hausse euh, des prix de l'électricité l'impact sur le la société. a Play at www.mikey's.com. alors Binta quelles ñu wax wàllum économie rek ma gisaat nga defaraat toogaay pour gën a mën a janoo ak man. waaw waaw baax na am na solo ba tey. Euh, comme ni nga ko junjuwee mbokku téléspectateurs yi rek noonu la euh, parce que fan yi ñu génn gis nañ ne li nga xamante ne moo di courant dañ ko yokk ba tax na euh, mënu duma leen ci wax lu ngeen xamul gis nañ mouvement yi nga xamante ne tey juddu na jóg di xeex yokkute courant boobu ndaxte asma yokkute courant buñ ko tud rek xamante ne ñoo koy utiliser suñu ay biir kër ak yu ni mel di fay factures yi ci ñooñu la ñuy gën a euh, bàyyi xel mais ñeneen itam ñi nga xamante ne war nañ leen bàyyi xel mooy ñi nga xamante ne bu ñuy liggéey euh, dañuy faral di utiliser courant ñooñu nag bu fekkee ni amaana euh, seen loxo jotul seen ginnaaw wala seen business demeewul ni mu war a demee rek day indi ay gàllankoor ñooñu nag ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax parce que dañu bokk ci li nga xamante ne moo di secteur informel secteur informel nag buñ ko tuddee yaakaar naa ni semaine yële ñu génn semaine bi ñu génn plutôt ñëwoon nañ ci leeralal leen mooy lan donc foofu lañuy ñuy desandi ba tey euh, ba ci loolu rek ànd nañ ci ak kenn te ne xam-xamam màcc na jëm ci wàll wi nekk jàngalekat euh, fële ca daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop de Dakar professeur euh, Mor Gueye lay wuyoo ñu teewlu ko rek ak élément bi ànd ci ak Mame di dellusiwaat sur le plateau. Directly at www.mikeys.com. ñi nag secteur informel saay bu courant amee jafe-jafe ñoom danañ koy yëg même coupure yu bari yi boo ko fàttali ñoom la gënoon sonal. surtout bu ñu nekkee di waajal fête clients yi taxawu leen ñoom ñooy menuisier yi parce que léegi menuisier yi ñu ci bari bari seen jumtukaay dafa ànd ak courant mm-hmm. menuisier yi yi. ak yu demee noonu donc ñooñu aussi effectivement courant bi dana leen laal mais aussi dañuy seet ñoom ci seen biir informel bi am na ñoo xam ne xëy na du ñu am facture yu bari seen facture du xaw a jéggi dayoo. saa bu yokkutee amee rek mhm. consommateur bu mujjee bi mhm. moo ko war a supporter moom la ñuy wax en économie le destructeur final du produit dëkk boo mënti dem nag. ak système économique boo mën a yor mais sinon consommateur moo koy donc bu fekkee ne secteur informel menuisier métallique bi tailleur bi ak ñeneen ñu mel noonu euh, euh, yëg nañu yokk bi dal na ci seen kaw ñoom tamit dañ koy répercuter ci seen ay clients yokk bi mm-hmm. xëy na seen rek am na jafe-jafe mais jafe-jafe yu dana jaaxal nit ñi yooyu xëy na ñoom ñi nga xam ne dañu doon séntu pour euh, wàññi courant bi wàññi bu metti mm-hmm. ba di ko mën a sax jaay pitim réew mm-hmm. ñoom Mamadou Matar Cissé xëy na yaakaaroon nañu ne euh, ba pétrole bi ko dana continuer di wàññeeku at yi di ñëw 2020 mm-hmm. 2021 mais demeewul noonu xam nga moom la ñuy wax les prix son volatiles surtout en matière euh, d'énergie en matière de pétrole bu fekkee ne ñoom courant bi danañ ko yokk bi danañ ko évidemment foog ñu foog mu feeñ ci seen ay njëg foog seen njëkk aussi ñu yokk ñu yokk ci yokkute courant bi li ñu doon jaay bu fekkoon ne par exemple euh, dërëm la woon courant bi yokk peut-être euh, ñaari fifteen li ñu doon jaay dërëm danañ ko jaay dërëm ak ñaari fifteen foog ñu teg ko ci parce que ñoom duñu mën a supporter ki ki ki ñuy jaay supporter bu ko defee donc ñoom dinañ ko yëg mais comme ni ma la ko waxee ci kaw li waa Sénélec wax nee nañu du ñëpp ñooy yëg yokkute am na ñu bari ñoo xam ne bu seen facture jegewul dayoo duñ ko yëg ñi nga xam ne seen loxo jot na gannaaw daal ñoom la wax la wax classe moyenne ñoom ñooy yokk yokkute bi léegi nag secteur informel moo tax sax may nag dafa yaatu comme ni ñu koy waxee donc saa yi bu yokkute yokk prix wala yokk courant suñu xel day dem ci seen parce que ñoom ñoo ñu gën a jege mooy tailleur bi mooy menuisier bi mooy bijoutier bi yu demee noonu donc voilà mais c'est vrai que effectivement bu amee yokkute ñoom dinañ ko yëg mais yokkute bi aussi ñu wax ne xëy na pour redresser xëy na euh, les comptes financier de la Sénélec. xëy na Sénélec am nañu ay jafe-jafe foog ñu xoolaat euh, seen euh, koom nu ñu koy tëralee. Mm-hmm. du dëgg parce que xëy na seen ay euh, charge ëpp na xaalis bi ñuy mm-hmm. jot li leen di client di jox. du dëgg ni ñuy jaayee courant bi bu ko def parce que courant bi aussi foog nit ñi xam ne aussi mm-hmm. dañ ko yàgg subventionné. Banque mondiale Fonds monétaire waxoon nañu na ñu bàyyi subvention yi mais dafay loo xam ne dafa doy waar ba nga xam ne benn président ñemewul woon génn subvention parce que boo ko génnee courant bi dana multiplier njëg bi dana dem ñaari yoon wala ñetti yoon bi ma doon jar. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga leeral nga gën ñoo leeral. ay cadeau. donc di ko jaajëfal bu baax a baax moom professeur Mor Gueye yaakaar naa ni indi na ci ay leeral yu bëri euh, tey nag juste préciser que du courant en tant que tell moo ñu intéressé waaye jeexital bi nga xamante ne dina ko am ci secteur informel mais quand même il est bien que ñu indi tuuti euh, mbir mi fi mu soxee ko ngir téléspectateur bi ñuy seetaan gën a mën a comprendre donc euh, le premier décembre ba léegi yaakaar naa ni ñu ci bëri ci ñun paasa nelawatuñu ci la Eh, bu Sénélec en l'occurrence Pape Demba Bitèye annoncé ni courant bi dina yokku donc boobalee gis ngeen mouvement d'humeur yi nga xamante ne juddu na fii ci Sénégal yu ci mel ni ñoo lànk ak yooyu ndaxte mm. courant dafa nekk lu fragile loo xamante ne boo ko tuddee rek tey jii ñu bëri dañuy jóg parce que liñ koy utiliser dafa bëri tey boo xëyee di nga charger sa portable ci en un frigo à la maison et cetera et cetera donc ci euh, tey rek euh, li ñu joxe comme quoi que moo war a tax ñu yokk courant bi gis nañ peut-être am na ay confusion ñi génn nañ wax lii wax ji bëri na mais euh, li directeur général bu Sénélec wax moo di dañu am manque à gagner bu toll ci douze milliards et quelques douze milliards virgule cent quatre-vingt-onze et quelques donc loolu nekk na benn manque boo xamante ne war nañ ko gagner ba tey ci précision yi mu indi nee na am na ay ménages yi nga xamante ne amaana tey seen loxo jotul seen ginnaaw mm-hmm. donc dañ leen considérer comme ñi nga xamante ne alma ci kàddu bi duñu xaw a néew doole tuuti donc ñooñu nee na ñu ngi représenté cinquante quatre pour cent ñooñu duñu bokk ci yokkute bi mais ñooñu ñooy ñan aussi yaakaar naa ni dinañ ci ñëw ci yeneen ci ay émission comme ça ñu gën ko leeralal la askan wi donc professeur wax na ko nee yokkute amaana fi mu ne nii euh, kees yu sene Senelec soxla nañ euh, koppar moo tax amaana ñu indi yokk bi leneen itam lu ñu mën a jàpp mooy FMI euh, taxaw na ne Sénégal wala yenn ci ay dëkk il faut ngeen arrêté li nga xamante ne moo di subvention bi ngeen di teg ci courant bi parce que courant bi quoi qu'on puisse dire bu ko état bi subventionné wul euh, nee na njëg ji day gën di cher expliqué na ko de façon large nee na amaana tey buñ ko subventionné wul woon dina am ñoo xamante ne duñ ci jotee par exemple bay taal sax li nga xamante ne moo di ay ay sondel ak yu mel noonu yàlla nañ ci yàlla musal yaakaar naa ni weesu nañ stade boobu noonu donc nee na ñi fi jaar yëpp ci président ku ci mel ni président Diouf président Abdoulaye Wade ak yu mel noonu ñoom à chaque fois lu ñu dindi subvention bi parce que courant nekk na tey comme ni ma ko waxee sànq lu sensible loo xamante ne boo ko yokkee rek askan wi dañ koy yëg bu baax a baax donc euh, li tax tey amaana yokkute bi itam métti ci ñun asma mooy publicité bi nga xamante ne amoon na dernière